Bienvenue dans de production. Production, Académie Médan TV, les meilleurs dans bismil ilaahil xaadiril muriidi moom soob lay def ci ab bismil ilaahi xaadiril muriidi moom lu ko soob lay def ci ab muriidi huwa allazi yafalu ba gaynde baara liggéeykatu maama ma ngi nii toog muy Cheikh Mamadou Lamine Baara ki nga xam ne mooy wane maamam fu mu toll muy Serigne Baara Mbacke muy Cheikh Mamadou Bachir Xaadim Awa Ba gaynde baara mooy ñëw tey jii sa kër gi gaynde baara nag boo ko déggee ci réew mi bul laajte jëmb jaa ngi nii gaynde baara daal boo ko bindoon adresse ba makkatul karam indi ko Touba kër kenn rek lañ koy jox mooy sëriñ Bassirou Mbacké Xaadim Ba guy mbind gii rek mu ñëw ànd ak ay mbokki boppam comme ni mu ko baaxoo defee xoolal délégation bii mu àndal bu yeble woon dana doy sëkk waaye xam ne kii mu jëm matériel Serigne Touba la kii mu jëm alalu Serigne Touba la kii mu jëm c'est le conférencier à travers le monde entier ci Cheikhouna Ahmadoul Khadim Serigne Touba Khadim Khadim Rasoul kii mu jëm mooy jëmm joo xam ne ak ba at bu génnee ma toog TFM toog quartier général kenn ku ne da xam kan mooy na Ahmadul Khadim yaakaar jàmm ñi tey ëllëg Gana Messere Maxtaar jàmbaari sëñ Bamba ji Serigne Bassirou ba muy ñëw ànd naag Serigne Mame Mor Mbacke Dende moom sëñ Ibra Xujja moom Serigne moom moom borom Dende yi ñu gën koo xam Serigne Mame Mor droit muy kenn ci Serigne Bassirou Mbacke xaadewo ba waaye ànd naag tamit Serigne Modou Boussa Dieng mee toog Mbacke. waaye ànd nag rakkam ju baax jii muy sëriñ maam Cheikh Mbacke ayes ku ne xam na am na liggéey bu rëy bu muy def ci yoon wi di ko def ci lislaam di ko dox ci biir tarixa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir lislaam waaye bi muy ñëw ànd nag tamit sëriñ naa Mbacke moom sëriñ Xaadi Awa Bada di rakkam waaye bii muy ñëw ànd nag tamit ki nga xam ne mooy Serigne mbakke moom Serigne Modou Baara ànd naag Cheikh Soyibu Mbacke moom Cheikh Abdoul moom Cheikh Abdoul Ahad Baara waaye ànd naag Serigne Khadim Dieng ak ki nga xam ne mooy Serigne maam Cheikh Sarr di surtout maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñun donga yëpp ba muy ñëw daal ànd nag ñun ak jànkat yi nga gis kon daal kaddu gi moom laay jël jébbal ko Serigne ba Mbacke xaari aw ba gaynde Baara Serigne Cheikh Sarr kaddu waa kay mbooloo bi sëriñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. nee na mi ngi ñëw ci barab boo xam ne. barab la boo xam ne bu mu safoo ñëw la. ne di barab boo xam ne bu fi agsee. dafay mel ni rek mi ngi biir këram. nee na muy barab boo xam ne. ki fa ki fa nekk. ne day man may moom muy rakkam di xaritam di soppeem ngir jëmmi Serigne Touba. nee na mu ñëw ñi ma àndal ñëpp sëñ Seydou mii lim na leen. waaye nag mi ngi nuyu mbokkam yii mu fekk. nga xam ne bi mu agsee. dan koo wan ni ko. taalibe. sëriñ. sëriñ. Touba lañu. Eh, sëriñ Touba lañu. ci jëf. ci jëf. ak ci wax. kon sëñ bi Guèye sëriñ bi nee mi ngi lay nuyu. Cheikh naa Bey Guèye sëriñ bi nee mi ngi lay nuyu. nee di bég. ci seen taxawaay. lii rek mooy sëriñ nee na lii rek nag mooy sëriñ bi. bu ci yoon wi. lii bu génnee ci yoon wi. ñu ñëpp. nee na lii moo mag ñëpp. ñu yem ak ñëpp. nee mag ñu yem ak ñëpp. Mhm. bu ci yoon wi. na bu génnee ci yoon wi. yem ak ñëpp. ñu yem ak ñëpp. ndokk. nee na ndokk. bi ngeen ko dee sàmm. bi ngeen ko dee sàmm. di ko sàmmale sëriñ bi. di ko sàmmale sëriñ bi. kon jërëjëf Guèye. nee na bég njabootu Serigne Touba moom. nee na njabootu Serigne Touba moom. foo leen fekk foo leen fekk. sa njabootu sa njabootu bopp la ñuy doon. ngi rafetlu jotaay bi. kon ak taxawaay bi leen fekk. ak taxawaay ci kër Serigne Gana Messere mii. ci kër nag. nee na Gana nag. sunu diggante ak moom sunu diggante ak moom. kese la. nee na muy ab taalibe. di jàmbaar di dégg lu nekk. di dégg lu nekk. ngir yoon wi ngir yoon di encaisser lu ne. di encaisser lu ne. ngir yoon wi waaye nag ki tax mu koy def. waaye nag ki mu koy def. jar na ko jar na ko. ndax xolam bii. ndax boo ko xaree. boo ko xaree. Serigne Touba nga ciy fekk. loolu nag. nee na loolu nag. mooy mooy wane. nee na loolu mooy wane. cofeel cofeel. gi nit ñi gi nit ñi. am ci moom am ci moom. bëgg bi ko taalibey Serigne Touba bëgg. bi ndax taxawaayam ndax taxawaayam. kon sëriñ Ganna. na Serigne na moom du xaar. nga koy woo. di ma di ko yëgal màggalu daaru moxte. bu boobaa bu boobaa rek. dafay mel ni. dafay mel ni. damay weddi sama bopp. damay weddi sama bopp. ndax yow. ndax yow. li ma ak yow. li ma séq ak yow. xam nga ko. foo toll. foo toll. say jéego say jéego. say wax say wax. wax ju rafet wax ju rafet la. jëf ju rafet jëf ju rafet. amul kenn. amul kenn. kuy am ayib. kuy am ayib. waxatuma laa kub taalibe. laa kub taalibe. ci yow ci yow. nit koo xam ne. koo xam ne. ku woyof mbubu. ku nu xeeb amoon dencaloo ko benn ayib. Ah, dencaloo ko benn ayib. ayibu làmmiñ. Eh, lu ayibu làmmiñ. rawatina njabootu Serigne rawatina njabootu Serigne Touba. te dara. te dara. lu fees sa fees sa bët. lu dul lu dul ak taalibe. amul solo amul solo. nii sëñ bi maa béy mii def. nii sëñ maa béy mii def. gis njabootu sëriñ Touba. gis njabootu Serigne Touba. wàcc toog ci suuf. wàcc toog ci suuf. yow milieu buñ la mën a fekk. ndax yow millier bu la mën a fekk. amoo complexe. amoo complexe. ci ni man dongab Serigne Touba laa. ci ni man dongab Serigne Touba man de Serigne Touba nangul ma sama ndongo. man de Serigne Touba nangul ma sama ndongo. moo ma gënal. moo ma gënal. mu nangul ma. mu nangul ma. bokk gi ma bokk. bokk gi ma bokk ci moom. bokk gi amul njariñ. ndax bokk gi amul njariñ. bu amoon njariñ. bu amoon njariñ. sëñ Modou Moustapha. sëñ Modou Moustapha. Serigne Fallou. du jaay njureelam. du jaay njureelam. yóbbaale mbokkam yëpp. yóbbaale mbokkam yëpp. ñu jaay seenu njureel. ñu jaay seenu njureel. jënde ko ak taalibe. loolu loolu nag. mooy jariñ nit. adduna ak alaaxira te yow ci lool nga nekk. ñi ngi feddali kóllëre gi. di la ñaanal yàlla. yàlla sàmmal la boppam. taxawul la boppam. aaral la boppam. bis bii bis koo gisul rek koo gisul rek. dafa am ngant dafa am ngant lu ko tee mën a jóg. waaye ñëpp ñëpp. ñoo am yéene ñoo ñëw fekk la fii. ndokkeel la ndokkeel la. sargal la sargal la. gën la encouragé gën laa encouragé. ci say engagement ci say engagement. ci Serigne Touba ci engagement boobu nag. engagement boobu nag. kenn neewu la kenn neewu la. engagé engagé la. yaa xool ba mu neex la yaa xool ba neex la. nga engagé sa bopp. yaa xool ba mu neex la yaa xool ba neex la. jëlal sa bopp nga jëlal sa bopp. say responsabilité say responsabilité. ci wax ci wax. luy daggi luy daggi. yeesal yeesal. xolub taalibe yi. loo nekk kon loo nekk. ñëpp cay bokk nekk ñëpp cay bokk nekk. di la ñaanal yàlla di la ñaanal yàlla. mu sàmm la mu sàmm la. jàppale la jàppale la. taxawu la taxawu la. aar la. sa daara jooju ngay liggéey. sa daara jooju ngay liggéey. sëñ maam Cheikh moo la jox seg sëñ maam Cheikh Mbacke Ayes moo la jox seg bii. muy téeméeri junni muy téeméeri junni. mu dugal ko mu dugal ko. ci liggéey boobu ci liggéey boobu. moom moom. lu baax rek la sëñ maam Cheikh lu baax rek la bëgg. jàppoon naa ni. ndax jàppoon na ni. xelam sax xelam sax. nekkul ci loolu nekkul bi ma ko joxee. bi mu ko ko joxee. waxuma lu tax waxuma lu tax. waaye xam naa ni waaye xam naa ni. looloo tax nee na loolu nag li muy tegtale. yow sumb boo sumb. yow sumb boo ñun ñoo ko war a taxaw. loo yëkkati loo ñun ñoo war a taxaw ñoo war a taxaw. ba loola ba mel na nga ko bëggee. ndax sëriñ bi ndax sëriñ bi. yoon wii yoon wii. yoonu jàng la yoonu jàng la. ak jàngale. matlabul fawzayni matlabul fawzayni bi mu sancee Touba. bi mu sancee Touba. dafa wax ni. dafa wax ni. wajhalhu wajhalhu. dëhban dëhban. maskana taalumi wa mawdiatil fikrati wa mawdial fikrati wa tafahumi wal tusbitan wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim asalawaatu xamsa dëhban yaa xakim nee na loolu la bi sañ Tuuba mooy yàlla maa ngi lay ñaan diirub fii di sakkukaayu xam-xam te al te al madaarisu. xablal masaajidi xablal masaajidi. bu jàngu jàngu yi amul. duñ mën a am production. duñ mën a am production wu. imaam qualité ñu war a taxaw ñu war a taxaw. ci minbar bi ci minbar bi. pour mën pour mën a. wax ak nit ñi wax ak nit ñi. li yàlla yónnee li yàlla yónnee. ki yàlla yónnee ki yàlla yónnee. li mu wax li mu wax. nit ñi nit ñi ñu war leen ko ñu war leen ko jottali. kon ndokk kon ndokk. bi nga xamee bi nga xamee loolu. participer participer. sëriñ bi sëriñ bi. ci liggéey boobu ci liggéey boobu. kon maa ngi lay sant. di la gërëm sëñ Mabey sëñ Mabey. ngi fasante ak yow kóllëre bu yi jàllee loo nekk nan ko yëg ndax ñun kat amuñu lu dul sëriñ bi ku nu gis ngay dox doxin woo xam ne day dëggal di yeesal di yeesal. pas-pasu pas-pasu. génération bi génération bii. nga xam ne adduna nga xam ne. adduna adduna. mi ngi leen di tàmbalee fëkk. mi ngi leen di tàmbalee fëkk. waaye seen taxaw waaye nag seen taxawaay. comportement yu mel nii. comportement yu mel nii. dana tax dana tax. ñu dellusiwaat ñu dellusiwaat. ndax ak taalibe. rek moo am solo. lu dul moom amul njariñ. sëñ Abdoulaye dafa am lu wax ju am solo ju waxoon. te sëriñ Abdoulaye dafa waxoon wax ju am solo. nee na bépp taalibe. nee na bépp taalibe. boo xam ne boo xam ne. teg nañ ko ci jaag. teg nañ ko ci jaag. takk ñaari baaraami tànkam takk ñaari baaraami tànkam. tolloole ay cëram. tolloole ay cëram. laxas ko ci perkaal. laxas ko ci perkaal. teg ko ci jaag. teg ko ci jaag. jëme ko biir suuf. jëme ko biir suuf. tam nekkoon njabootuk sëriñ bi. tam bokkoon ci njabootuk sëriñ bi. boo ko ñëwee fëgg. boo ko ñëwee fëgg. ni ko am nga beneen sëriñ. ni am nga beneen sëriñ. wala beneen yaakaar. mbaa beneen yaakaar. bu dul sëriñ Touba bu dul sëriñ Touba. mënoon a jóg bu mënoon a jóg. day jóg jóg. jëlu yat jëlu yat fëgg la ko. ndax xam na ni fa mu jëm. ndax xam na ni fa mu jëm. ka fay jariñe ka fay di fa dimbalee di fa dimbalee. mooy Seexul Xadiim mooy Seexul Xadiim. loolu nag nee na loolu nag. jamono bii jamono bii dem na ba nga xam ni. ñi jàngi ñëw. ñi jàngi ñëw. xamuñu dara. xamuñu dara. jël te xamuñu dara. te xamuñu dara. waajuru Seydina Ali. nee na waajuru Seydina Aliyun. bi mu wàccee liggéey. di jigéen. di jigéen. yonent bi dafa wax ni. yonent bi dafa wax ni. dafa sumi mbubbam ñu dencaale ko ko. ñu dencaale ko ko. mu taxawul boppam. taxawul boppam. jullee ko dugg ci biir dugg ci biir bàmmeel bi. defar ko defar ko nangu ko nangu ko jox ko jox ko mu dugal ko ci biir bàmmeel bi. bi mu paree bi mu paree. Seydina Omar Seydina Omar. ni ko li ma gis nga def ko ni ko li ma gis nga def ko tey. musuma gis musuma gis. nga defal ko kenn mu ni ko kii mu ni ko kii tëdd. mooy sama ndey mooy sama ndey. bi ma ñàkkee bi ma ñàkkee Amina. bi ma ñàkkee Amina. moo ma taxawu moo ma taxawu. moo ma dimbali moo ma dimbali. moo ma toppatoo ba tax tey jii. ma mën a am lu ma mën a am li ma am. mu summi mbubbam mu summi mbubbam. solal ko ko. solal ko ko. ñu dencaale ko ñu dencaale ko ko. ñii wax naan. ñii wax naan. te xamuñu dara te xamuñu dara. ku faatu. na fab ku faatu. nee nañ sax jàngal ko. nee na sax jàngal ko alxuraan. daganul daganul. yemuñu ci loolu. yemuñu ci loolu. ñu ni dencaale ko dara. ñu ni dencaale ko dara. dafa xaraam maa ngi leen di orienté. mu ngi leen di orienté. delluwaat di delluwaat. ci xaddis boobu ci boobu noonu. te gànn. te gànn. loolu. loolu. lay wax loolu lay wax. muy lu muy lu dëggu. muy lu wér muy lu wér. ndax sëriñ ma sàmba am na am na. taalibeem taalibeem. bu mas a wàcc liggéey. ñu jël ñu jël. lu bokk ci Serigne lu bokk ci Serigne bi. dencaale ko ko dencaale ko ko. Serigne Massamba nee na Serigne Massamba nee na. bin suulee ba pare rek suulee ba pare rek. dafa dégg dafa dégg. bàmmeel bi bi. muy kërën kërën muy kërën kërën mu ñëw wax ko sëriñ mu ñëw wax ko Serigne Touba. Serigne bi ni ko bi ni ko. xanaa dafa am. xanaa dafa am. lu bokk ci man lu bokk ci man. lu ngeen ko denc lu ngeen ko dencaaleel. ñu ni ko waaw <laughs> ñu ni ko waaw. mu ni leen malaayka yi mu ni leen malaayka yi. dañuy xëccoo loolu dañuy xëccoo loolu. te yow wax. te yow suñ gànna ci loolu rek ngay wax. waxoo lu génn loolu. waxoo lu génn loolu. bu sëriñ bi waxee. bu sëriñ bi waxee. ittibaaw xaqi cheikhil murabbi anzamun min xaqil walidi li anna cheikhil murabbi yurabbi arruha wa yuraqi ilallahi fala budda lahu min duxli jannat wal walidu yurabbi aljisma faqat imma min duxli janna wa imma min duxli naar mu ni topp sëriñ bu mat ab sëriñ moo gën a màgg màgg. ci topp ci topp. say waajur say bu yàlla bi waxee loolu. bu waxee loolu. nga jàng alxuraan nga jàng alxuraan. woo say na insaana woo say na insaana. woo na insaana na insaana. bi waalidayhi xusnan xamalatuhu. ummuhu karhan karhan. wa da'atuhu wa da'atuhu. kërxën kërxën wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuna saalis bee mu wax ni wa wasayni istaana bi waalidayni amalatun ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaaluhu fi amalin an nuskur li wali waalidayka ilayal masir ilayal masir. bi ma njëkk a wax nee na bi mu njëkk a wax. mi ngi ci sóoratul laxraaf mi ngi ci sóoratul laxraaf bi mu mujjee wax bi mu mujjee wax. mi ngi ci sóoratul luqmaan mi ngi ci sóoratul luqmaan. yàlla dañu ci loolu. waxaat la waxaat la waxadaa rabbuka an laa taabudu illaa iyaahu wa bil waalidayni ihsaanan imma yablughanna annaka kabar ah, ah, wa indaka kabar ahaduhuma aw kilahuma falaa taqul lahuma uffin wala tanhurhuma wa qul lahuma xawlan kariman waxfit lahuma janaase min arrahma wa xuli rahmaha rabbi wa waxul rabbi irhamhuma. waxul rabbi arhuma. irhamhuma kama. rabbayaani rabbayaani. saxiran saxiran. bu a tax loolu lépp. li la yàlla di wax. li la yàlla di wax. nga topp say waajur. nga topp say waajur. nga topp say waajur. la la yàlla digal. lala yàlla digal. bu sëriñ bi waxee loolu. nee na bu sëriñ bi waxee loolu. da ngay xam li tax sëriñ bi wax. da ngay tax da ngay xam li tax sëriñ bi wax loolu. mu orienté waat la. nee mu orienté waat la. ci nuux. ci nuux. ak doomam ak doomam ja. bu mu nekk yàbbun na yirkab. bu mu nekk yàbbun ya irkab. maana. maana. wala takkun. wala takkun. min lu ko wax. lu ko wax. saawi. saawi. ilaa jabalin ilaa jabalin. yaasimu yaasimunii. minan maay minan mun ko déedéet mun ko déedéet. la asima yawma. min amrillah ba nekk sama doom ba mu nekk sama doom. kaay ci gaal gi ci gaal gi. mun ko mun ko déedéet. xeer fa lay dem fa lay dem. fa lay ngir mu sawe ma ngir mu sawe ma. ñu ko déedéet ko ñu ko boo fa yéegee boo fa yéegee. da ngay sànku da ngay sànku. ba mu bàyyee ndigali waay ba mu bàyyee ndigali waajuram. def loola def loola. dafa daal di faatu dafa daal di faatu. bokku bokku te ña nga xam ni te ña nga xam ne ëllëg sawar lañ jëm. te baayam te baayam. ab yonent la ab yonent la. bokk ci ulul azmi bokk ci ulul azmi. wa is axasna mina nabiyina misaaquhum wa minka wa min noohin wa ibrahima wa Musa wa Isa taala sëriñ bi matub sëriñ. bi matub sëriñ nag. mooy sëriñ mooy sëriñ Touba. da ñëw. da ñëw. su ko jébbalu su mun la jàkk di leen ziyaara di sàkku ci ñoom ñu ñaanal ko ñu ñaan nag ci réew mi jàmm yii fi xew nañ ci génn am réew li koy taal mooy ay caaxaan naxante warante ñàkk waxante lu dëgg day taal am réew réew bu la ko yàlla joxee nga yor ko fukki at ak ñaar yàlla lu am moom la qul laahumma maalikal mulki tuuti mulki man tashaaw wa tanziul mulki mi man tashaaw wa tuizzu man tashaawu wa tuzillu man tashaawu bi yaddikal xayru innaka ala kulli shay'in qadirun moo ko moom moo ko yor moo koy joxe kum koy jox du ko tàggu kenn bu koy jël du ca xool ku xolam sedd mbaa ku kontaan mbaa ku kontaanul ngal la boo ko yoree fukki at ak ñaar tollu fii wooteel jàmm joxe ko ci jàmm ki ko war a jël jël ko ci jàmm Sénégal jëm kanam leneen lu dul loolu fitna lay yee al fitna al fitnatu naima naima laana allahu man xay sahaar man xay xasaha fitna ma ngay nelaw yàlla rëbb na ku ko yee wattaqu fitnatan la tusibanna lazina zalamoo minkum xassa te nee na fii réew mi toll ku fi faatu ki ko yàlla dénk bu ëllëgee yàlla moom la koy laaj ndax xaddis la ndax xaddis la bu wér kullukum raayin wa kullukum mas'ulun an raiyatihi yowmal qiyaama te moom moom xaritam la ma yéene ko jàmm bëggal ko jàmm bëgg ëllëgam dàq junni yoon tayam kon nag na góorgóorlu def li war a def def li mu war a def te génn te génn ci yii ñu koy dugal du dara du dara ay caaxaan rek la te bari na ñoo xam ne te bari na ñoo xam ne bu seen i pexe juboon démb te du ci jot tey kon jot na ci kon jot na ci te fii mu toll te fii mu toll isa tammal amru badaa nafsuhu isa tammal amru badaahu nafsuhu nee na mbir bu matee rek nday tàmbalee wàññi ko nga wax gone gu tuuti jóg ngay kilifa ak réew mi gone gu tuuti jóg xas la ŋàññ la saaga la sa c'est parce que li la yàlla joxoon da nee na ko roccet boo ko yëgee am na boo ko yëgul am na kon nag mi ngi koy ñaanal jàmm yàlla defal ko jàmm mu dellu soot xelam te bañ a déglu ñi naan ko bu doon mbana li mu war a def def na ko li mu jëf ci réew mi kenn mësu koo jëf acte bu ndaw acte bu ndaw day effacer lépp na moytu loolu mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaam waaw waaw baax na baax na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, Cheikh Ahmadou Bachir ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko fii ci jataay bi waaye li ci gën a neex mooy dafa am. Euh, kàddoom yi fu mu tombe ak ci ku tombe ndax ku tudd daarul mooti da nga tudd maam Thierno Ibrahima te maam Thierno Ibrahima mooy baabul ulum bu ñu ko mënee wax ni Seydina Ali karamallahu wajhahu nekkoon ci Yonent bi sallallahu di buntum xam-xam ci diine loolu la maam Thierno Ibrahima nekkee euh, baabul ulum mi ci buntu Serigne Touba te ñëpp histoire xam na ko ci xam-xam ak jàngaleem kon Cheikh Amadou Bassirou boo ñëwee yëkkati kàddu yi nga yëkkati fii ci leeral ci xam-xam ay alxuraan yi nga indi ak ni nga jàngalewaate loolu def nga ko fi nga ko war a defee waaye def nga ko ci dëkk boo xam ne borom dëkk bi yéeg na ne tey xam-xam feeñ na alxuraan feeñ na waaye nga def ko tamit ci këru koo xam ne ci xam-xam rek lay dox ci xam-xam rek lay yëngu muy sëñ Gana Maxtaar mii toog nga xam ku ko gis muy dox xam-xam ngay séentu ci moom moom ngay xool ci moom te lépp di wane njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba sëñ sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mu nekk koo xam nag ku mat a jàppale la ku mat a jàppaleel ku mat a ñaanal bari na te ñu gindeeku ci sëriñ Tuubaa ak ñeneen ñoo xam ne duñ ay murit ba dugg ci biir yoon yi gannaaw yàlla jëmmam ji la te li Cheikh Ahmadou si wax mu ànd ceeg fi du mat sëkk fi du na xam-xam moo ko lal moo ko jiitu waaye xam-xam loo bari bari xam-xam te amoo fit doo dem xam ngeen ñi ëpp fit ci àdduna bi ci nit ñi bokk ci jaamu yàlla mooy yonante yi ñee ci topp mooy awliyaa la taala sëñ Tuubaa ku ëpp fit li mu fekkoon bu amu doon fit mënu ko mënu ko àggale mukk kon képp ku roy ci moom da nga war amu fit ni nga xam ne Cheikh Ahmadou Bassirou kaddu yi mu fi yëkkati xam-xam da ko lool waaye ku amul fit mënoo ko yëkkati ku amul fit mënoo ko yëkkati ndax boo ragal ragal yàlla booy yaakaar yaakaar yàlla yàlla rek moo fi nekk nag kese kot kon ba tax na kaddu yi mënuñu woon a ñàkk pour laytaay ci nii waaye di ci laytaal tamit loo xam ne ñun ku ñu xam xam xar kanamu euh, maam Cheikh Mbacke nga gis ko xàmmeekaay bi mooy AIS AIS lam lay jox mooy sàmm ndonoy mag ñi mii de ci lañ fasante mu jàppaluñ ci bu baax a baax nag ci waxtaankat yu baree bari yoo xam ne dañuy lëlu waaye moom bu génn jotee day génn wax koo mën a doon laal ci mag ñi laal tasawuf suñ gànna dana taxaw wax ak yow te loolu wax dëgg yàlla li sëñ Bass doon wax léegi dompat sax sot la bokk kon bu ñu nekkee ci waaroo di ci liggéey ñu gis sañ na ci xam-xam ci xekmaam ci fasaaxam nga xam ne lu borom xam-xam waroon dajale ci ay hadis yu bari ay yu bari moom day ñëw tënk ko ci genn kàddu loolu nag xikma la wa man yutil xikmata faqad utiya xayran kasira kon loolu yàlla suma subhaanahu moo ko jagleel te fasaaxa dafa am solo te lu mat a ñaan ndax ndax na sax ak Muusa gis nga la ci xaw Euh, Moussa yonante la kenn wérante ne mooy buntub xam-xam mooy lépp xam-xam mooy ndabal xam-xam waaye ñàkk fasaaxa moo tax mu ñaan yàlla Haaruna mii huwa afsax minni lisaanan fa arsilhu ma'i kon xekk fasaaxa dafa am solo te yàlla jagle na ko suñu Gana Maxtaar kon loolu dañ koy ñaanal mu gën a yokk ndax lu mu gën a yokk xam-xam gën a yokk ñu gën a xam kan mooy Serigne Touba rawat na waxtu yu ñu toll waxtu yu ñu toll taalib yi bëri réer nañ ñu bëree bëri nañ ba yóbbaale ci ay ay imam ay imam ñu ay borom xam-xam ñu yóbbaale ci ndax saa su ngeen dégg jamono jii ñuy garambaasu ak euh, ñoraasu suñ kilifa yu tedd yi suñ xale bi seen rawatina Cheikh Mamadou Mountakha te wallahi ca ginnaaw ñun bi ñu taxawee di xeex loolu ñenn rek lañ jàkkaarloo muy salafé yi kese lañ jàkkaarloo waaye dem nañ ba tey ñoo xam ne ñoo gënoon jekk ci wagar Cheikh Mamadou Mountakha wagar suñ xalifa généraux yi ñii ñi ngi ci biir dëkk bi tubaa ñii ñi ngi feneen buñ taxawee ci xutba yi la wax daanaka ku ku ku yàlla dimbalu nga oyof bopp boo fa jógee man ngaa romb xalifa yi te doo ko doo ko nuyu ngir seen i kàddu te lépp jëm ci àdduna kese wala yaasu billahi taala te moo na day buñ jàngoon xadis bi yontu salaan san wax te suñ gaan na xam naa dana ci ñëwaat ay waxtaan te loola ñu ko bu ñu ci tegoon ñoom imaam yooyu wax wala borom xam-xam yooyu wax buñ jëloon xadis boobu teg ko rek maanaam danañ am ngant loo xam ne danañ ci mën a eh, layal Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye danañ ci mën a sax def li leen yàlla digal ak yontu salaan san leen gis ngeen bu yàggu dara ñoo xam ne ñuy génn naan eh, yonent salance nee na ku yittewul mbirum julli ñi bokkoo ci ñun bay garambaasu kilifa gu tedd ko wax Cheikh Taxa kooku day ñooñu di wax loolu ak ñu mel na ñoom hadis bi may bëgg wax buñ ko xamoon duñ duñ jiitu mukk seen kilifa wala ñu koy garambaas ci mbir te hadis boobu sax ñuy wax man la mu yëxtab bi umar masi fadee sa minna du hadis bu wér wérul waaye xoolal hadis bi nga xam yonent sa da ko wax ngir bëgg a sàmm kilifteef ndax lislaam daa bëgg mbooloo mu booloo am kilifteef yonent sallallahu da ko digle ba yaa ayyuhal lazina atii'u llaah wa atii'u rasuula ulul amri minkum ulul mu wali amr mooy ki méngoo say mbir rawat na xali ab xalif généraux kooku dañ ko war a topp ni nga war a topp yàlla subhaanahu wa taala muy farata topp yenn sens noonu ko war a toppe mu wali yàlla fonk ko lool ba yonent sallallahu wax ci benn xadis ne as-sam'u wa taa mooy xadis bi ma bëgg wax suñ ci gën a ñëw xadis boobu gëstu bu baax gën ci ñëw as-sam'u wa taa alal mar'il mu ne dégg di déglu ndigal ak jëfe ko wa taa dafa war ci bépp jullit bu ko wali am rek mooy ku ko mel ni ne Cheikh Ahmadou taxaa bu doon murid yëpp sëñ Mountakha mooy seen wali am tijaan yi aju teewaawoon sëñ Babacar Si Mansour mooy seen wali am Kawlax sëñ Maahi Ñas ba sëñ sëñ Sekk Njaasaan sëñ Bukkunta Njaasaan ñooñu ñooñu seen wali am yentu sens daa wane wali am boobu danga ko war a dégg buy wax bu la digalee bu la bu nga jëfe ko bu teree nga bàyyi xam lu ma ci rek fii ma ba ci la nga bëgg aw këriha wala nga wala bëgg wala wala nga bañ ko la ma lay digal fii ma ahabba wa këriha ñuy bari nag ci ustaas yi wala ci ah, ci imaam yi hadis bii ndax dégg ngeen jamono bi kenn koo jël di di ko tas si jàkk yi déedéet ndax ñu bari dañoo mel ne man dañoo far moo tax hadis bi duñ ko jël mukk di ko wax yéen sens bi daa xam ne da ngaa war dégg ndigal te di ko jëfee ci la nga bëgg ak la nga bañ borom xam bi ñëw lan ngay bañ ak lan bëgg mooy bu la digalee li nga xam ne da la caa fekkoon mu yàlla la yàlla bëgg ak yan sens bëgg loolu da ko war a digal bu la digalee loo xam ne te te te xadis ba la ma ko jeexale maalam yumar bi maasiyat loolu wax maalam yumar bi maasiyat li fekk digaluñ ko ak mooy yàlla fu ñu ko digalee ak mooy yàlla fala taata li maa xaluuxin fi maasiyat waaye borom xam ne dañoo maa këriha li nga bañ mooy lan dañuy wax sa masaali saxsiya mooy interpersonnel tey jii interpersonnel bokkut ak lii yàlla digal ndax julli moom yàlla ko digle yàlla ko digal ak mel na yooyu ay farata la waaye masaali saxsiya mooy yoo xam ne ay interpersonnel la kër goo war a tabax wala yenn yoo war a def wala xeet mel noonu nee bu ñu la digalee bu ñu la digalee ne la euh, euh, sëriñ bu la digalee ne la sa wàll yi am bu la digalee ne la loolu bàyyi ko nee na loolu da nga ko war a bàyyi bu la digalee tamit ne la masaaliha amma boo xam ne dañu ci dugal loolu mooy intérêt général ni ko gars yi waxee waaw intérêt askan bu taxawee maanaam nangam nangam sëriñ si seen bopp lañ nekk nangam nangam waaye intérêt général bu ñëwee ñu def nangam nangam loolu boo xam ne dañoo ne dëgg bu na intérêt général nga xam ne ay wo ay voté la tey naa ko naa ko mën a misaal voté intérêt général tànn am fa lu mu jëw tey jii bu fekkoon dañoo war a dem woote ji ku dégg xadis bi laa wax nag te jullit ñu déggal la ko imam bi lay waare déggal la ko sëriñ bi lay jàngal déggal la xadis bi ak li ci nasanc diggee ak lam ci tëkkoo wallahi lancé bu élection jotoon si amoon mu taxaw ne bu kenn woote ji képp ku di amuri da war a toog war a woote ji ndax day dugg fi ma ahab boo wa këriha wa këriha ndax kenn ku ne bëgg naa woote am nga sa mbër kon bëgg nga waaye bu si mu taxaw boo leen toogal bul woote day dugg ci fi ma fi ma axa boo kërixa lay dugg mooy da ngaa war a toog war a woote ji waaye bu ñëpp xëyin xëyin suba war a woote mu ne leen woote leen diw te diw moom bëggoo ko day dugg fi ma axa boo kërixa wa kërixa la nga bañ bi maanaa kenn mooy sa mooy mooy sa mbër kenn sa mbër suñ mu taxaam ne la woote la diw loolu ba léegi dugg mooy yàlla déedéet day dugg ci li nga bëgg ak li nga bañ ndax woote nit woote du farata fekkoon nag Cheikh Mouhamed Mountakha daa tax wala xalifa général bu taxaw ne bul julli ah déedéet loolu faw faw nga woor bul jokk mbokk faaw nga jokk mbokk bul def nangam sa jur faw nga def ko ndax loolu farata yàlla suma subhaanahu moo ko digle kon mbir yi dañuy jaaxa day day day borom ko xam yi wala ñenn ñi far dañuy jaxase bopp nit ñi jaxase bu métte métte te jot na nag waxtaan ak actuellement fi ñu toll ñu xam ne lii mooy farata lii farata mooy ëpp képp ku ëpp jullit ak këla këla këla yilif ci diine rawat nañu murid nga xam ne lu ñu mas a xam mooy murid ndigal Sëñ Tuubaa sifaatu saadiq murid li mu ko tëggoon mooy hadis bi yon sens asamo temps Sëñ Tuubaa da ko tënk ci sifaatu lixtisaar ah mooy mahabut seexi summa imtisaal amrihi xay fi warat ntegaate wa tarkul i'tiraadi doo doo indi doo indi looy gaar-gaaral wa maa salbu ixtiyaar maanaam doo am choix loolu dañu ko tënkal ci yaa ayyuhal lazina atii'u llaaha wa atii'u ulil amri minkum waaye tënkal na as-sam as-sam watan ala ala al mar'i fi ma ahabba wa kariha kon jot na sëkk mbokk yi fii ñuy waxee day kër borom xam-xam fii ñuy wax day dëkk borom xam-xam moo tax bu ñëwee ba fii faw ñu yëkkati fi kaddu yii woowaat suñu bopp wowaat woowaat mbokki taalibe woowaat mbokki julli bu ñu bu ñu saytaani war bu ñu àdduna war bu ñu àdduna fëkk nañ fonk gën a fonk waggar suñu kilifa diine xam ne farata la yàlla ni mu diglee ñu julli diglee ñu war noonu la diglee ñu war a somm suñu kilifa suñu kilifa kon foofu lañ doon addu ay kàddu di ñaan yàlla eh, eh, yàlla nañu fi yàgg ñëw sëñ Gana yàgg la fekk yàgg ànd ak suñu kilifa gi barki sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah Bienvenue dans votre maison de production. GP, Gabon Production, Académie Médiane TV, les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise.